dalal nañ leen ak jàmm Rewmi People comme samedi bu jot ni ngeen ko xamee saa bu 16 jotee day teew acca kon ñu doxal waaye nag man ak sama binom di jili deex ñoo ci daan fego waaye tey nag sama naataango sama consoeur du quotidien Rewmi la ci àndal Anna Thiaw comme di ngeen ko xamee Rewmi quotidien a fait peau neuve dafa gën a mettre les bouchées doubles chaque semaine donc votre canal vous propose entrevue bu large ak ñi nga xamante ne ñooy les célébrités sénégalaises cette semaine nag ki nga xamante ne moom la ñu seeti woon mooy baj géwal ndakaaru Mbaye Dieye Faye kon tey jii moom la ñu nar àndal ci seen émission Rewmi People ñu ngi leen di gën a suggérer kon notre quotidien disponible tous les jours dans vos kiosques cent francs rek lay jar VSD bi nag ci lay dàkkati ndax bu ngeen ko yëree lépp lu jëm ci wàllum people ak célébrité di ngeen ko am alors sans plus tarder ñu digtal leen kon léegi-léegi l'émission Rewmi People de ce samedi avec Mbaye Dieye fay Awa Mimi Seck et Anna maintenant sur la radio du bonheur. Amis auditeurs merci et aussi aux téléspectateurs de la chaîne euh, du peuple Rewmi TV am nañu mbégte dalal leen ci seen émission Rewmi People tey ñu am mbégte ñëw fii ci Sacré-Cœur seet si El Maestro tonton Mbaye Dieye Faye donc euh, tey moom la ñu am mbégte seet ci li nga xamante ni mooy émission Rewmi People fas yéene waxtaan ak moom mu jox ko mu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoo koy teewlu ci la rajo Rewmi FM et aussi la chaîne Rewmi TV tonton salaamaaleykum. maaleykum salaam. Mhm. ziar naa la. delloo ziar bu wér. ah mhm. kontaan ci yéen am mbégte. Mhm. ah euh, bi ma waa TV ah? la chaîne du peuple loolu nga wax. Ah? la télé du peuple. la télé du peuple. réew mi quotidien réew mi nag moom ma yàgg naa wax président ne ko jël nga tur boobu bu am maanaa réew mi ah réew mi donc dégg ma seen micro ma jàkkaarloog seen caméra ngeen fas yéene ma laaj may wax mais da mbégte lay doon ci man parce que bi njëkk moom mooy ki nga xam ni moom mooy président Mbagnick di suñu xarit sunu doomu ndey euh, nit bu baax nit li may wax Youssou laa koy fa di wax l'africain le sénégalais moom réew mee ko soxla am réew mi dañu soxla kuy jël doomu réew mi di leen yënguloo ci réew mi dégg waa réew mi bu jëlee seen seen kilifa di jël doomu réew mi di leen yënguloo ci réew mi ñuy bégalaate di bégal waa réew mi di yee waa réew mi donc ça sonne trop et très ah, moom moo tax may leen est xam ngeen ni seen kilifa di la président Mbagnick mhm. gaynde la c'est un ça c'est vrai. waaw comme et puis nag ñoo ngeen seen kër. Euh, madame Diop Diatou Sané. Euh, mook maam Ndiaye mënoon nañ jël micro. Mhm. dékk ma ko may wax ci réew mi. Mhm. ah parce que ku ne xam na ni. ñoom ñaar nii la. et donc félicitations encore une fois balaa ñuy tàmbalee waxtaan wi. donc euh, cette émission que j'aurai l'honneur de présent de co-présenter avec ma consoeur du quotidien Rewmi Quotidien nga xamante ni nag fi mu ne dafa yokk cere dolli ñeex ndax dolli na deux pages ce qui fait douze pages. benn page boo xamante ne dañ koy consacrer exclusivement au people aux célébrités sénégalaises donc Anna Thiaw Anna maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen fay euh, ñu am mbégte aujourd'hui euh, ak suñu tonton Mbaye Diène Faye léegi ñu bàyyi leen ak moom comme ça ci lan lay def lan lay yëngu. en ce moment. d' accord tonton euh, kon dégg nga li nga xamante ni mooy question lan ngay def ci lan ngay yëngu mais avant j' aimerais apporter benn précision parce que sànq yaa ñu dalal ci sa somptueux salon bi macha allah maa ngi gis benn tableau bu rafet buñ fa accroché c' est marqué dessus Mbaye Gueye Faye. Ouais. beaucoup disent Mbaye Gueye Faye. c' la nuance c' est quoi s' il y a une différence bëgg nañ ko xam. Euh, bon tableau bi. Mhm. bon xam nga gars yi nag dañuy xër. ki ko defar. daf ko defar yónnee ma ko jox ma ko boo xoolee euh, du man rek sax maa nekk ci tableau bi mhm. am na kilifa bu ci nekk bon ñu bari nag dañuy jaawale géey bi ak jéey bu mhm. fait c'est jéey waaw moo tax may far di wax man maay euh, borom ñetti sant yi mhm. dama jël mbay c'est une autre famille jéey c'est une autre famille fay c'est une autre famille donc mbay nag mooy Babacar ah mbay jéy fay la mbay jéy fay ah voilà kon erreur bi buñ ko defati c'est bien mbay jéy fay mbay jéy fay mais ñu bari dañ mbay mbay géey bi mhm. parce que xam nga mbay géey moom saa saa saa son dañ koy dégg lu bari mhm. mais mbay jéy fay mhm. waaw moom mooy suma tur euh, dañoo bëggoon nga wax ñu euh, kan mooy mbay jéy fay en dehors de la musique mbay Dieye fay ah, laaj na ma question bu am maanaam boo xam ne mën naa ci répondre mbay Dieye fay en dehors de la musique Mbaye Dieye Faye c'est petit-fils de Seng Seng fils de Seng Seng d'une grande famille griotte euh, boo déggee ñu naan Seng Seng defe naa bu ngeen seetloo lu ngeen dégg ma way ko diggeen ci dégg turu Seng Seng d'abord mbay Dieye fay benn doomu aadama la boo xam ni yàllaa ko sàkk ah, wàcc ko ci suuf def ko ni ko def alaaji Vieux Fay jur ko ak ajaratu Daaru Mbay maamam di baj géwal Ndakaaru man baj géwalu Ndakaaru laa ça merci beaucoup euh, ñun mhm. ñun ay lébu lañu à cent pour cent sunu maam Seng-Seng ni may waxee ni moom daawul waxee ni da daan wax comme boo duggee yoof aw dama la ngëj mag ni yooyu leen daan wax surtout lébu yi mhm. ñun dañu bokk ci fukki pénc yi ak ñaar euh, di ay sëtul ak daawul man rek ak lu ma bokkal deret rek maa la mën a wax ni lëg daawul sunu maam rek la daan jël maam sañ-sañ tous les jeudis bu xaaju gi digg jotee nga dégg tànku fas yi muy kokki kokki ba fii ma dëkk nii guddi alxemes lëg daawul dana fi jaar waaye kenn mën na koo bañ a xam waaye man su ma déggee dinaa xam ni kii maam la ndax fu ay sëtam ne daf fay jaar boo xoolee léeg-léeg man ni sax bul ko laal bul ko jege waaw mbay bul laal bul jege waaw parce que li mu ànd la tax et donc nekk ba géwal ndakaaru judd ci këru ngéwal nag gu mag jàng li nga xam ni moom mooy sabar waaye nag mu nekk ci deret bi d'abord xam nga lu nekk sa deret il faut mu génn loo ko téye téye génn parce que kooku mooy Mbaye Dièye Faye on aimerait bien savoir tëggum sabar c'est quoi l'essence sànni du est nit ki dafay juddoo ci famille griotte rek mhm. mbaa xëj na waajuram di tëgg moom tam est-ce que forcément dafa war a tëgg bien sûr xam nga lim naan kéwal du tëb doom ci bët mais est-ce que amul amul doom yi bëtt mais doom ju bëtt rek dafa fekk Euh, xëy na nga bañ koo def waaye mi ngi sa deret àla kuli boo ko deful tamit di ko yëg ba wane ni yow lii nga mhm. lii mooy daw sa deret parce que boo déggee ñu naan kéwal du tëb doom je bëtt maanaam kéwal day tëb donc doom je ba rek am na lu manqué mhm. moo tax naan kéwal du tëb doom je bu tëbee rek doom day day day day day tëb doomu ñay rëy lañ ko xame bu ko ñaanal mu rëy dana rëy alaa kuli doomu ñay dana rëy mhm. doomu gaynde noo def mu ŋar maanaam noo def mu yuuxu parce que baayam loolu la xam gaynde la te it noo def mu rëbb ah parce que gaynde la waaw xam nga tey jii xar mi boo ko solo sololoon desneer bi gën a cher ci desneer yi daggal ko ci garam bu musóor ko boo ko bàyyee ci xar yi rek la jëm ma consoeur moom xam naa li ko gën a intéressé mooy sa rencontre avec euh, Youssou Ndour parce que bu ñu nee Mbaye Dieye Faye ne Youssou Ndour dañ sax vous êtes son la liaison fan la tàmbalee. Euh, bu nit ñi déggee maanaam moo jumeau. Mhm. danu bokk bésu anniversaire. ñu ñaar ñëpp ay premier octobre lañu. Euh, Youssou dañu màggandoo ak seen kilifa bii di Mbagnick le président Mbagnick ñoo defandoo nii. les ah, ma lay xamal ni balaa ma ciy ñëw. kooku ma tudd di Mbagnick ak Youssou mais dañu am ay jaar jaara ama jaar-jaar dafa baax ci doomu aadama nit day am jaar-jaar day jaar ci lu metti mujjee ci lu neex yuusu ñu màgg màggandoo di ànd sunu maam yi di ànd sunu nijaay yi xamante ma di doomu Fass di doomu Médina moom itam muy doomu Médina ca rue 15 ak rue 22 ba ma soxee ko kër maamam bu ñuy wax Boubacar Ndour bi ñu tuddee Bouba Ndour mi mu jur yaayam en 1973 la ñu commencé nag di dugg ci yëf yi 73. ah oui ça fait longtemps. Ah ñuy dem di dem di dem di dem ba dugg ci musique fin 73 jàpp 74. dugg ci musique bi àndandoo. di def tout au ko doon tëggal. 60 euh, ñun ñooy ànd di jàng li nga xam ne moom mooy musique bi. muy way man may tëgg. ñu bokk orchestre bi ñuy wax jamono 1 à bi jamono 1 boobu tasee la super jamono formé moo tax ñu naan super jamono parce que y lu jamono 1 à muy way may tëgg di way en même temps parce que man waykat laa woon mais bi ma demee ba gis ni sans waa ji mën naa way lool ma ne xaaral man ma doon tëggkat bi lool waaw ànd ak xooslu dem fu ne ah way ah dem fu ne je te dis suñu premier 31 décembre nii am ku ne 1000 francs CFA mais c'est c'était dans quel cadre ci ban cadre ngeen ko amee woon. mais dañu joué ba tas ñu ngi ànd ak ay doyen. ñu nu magoon ci musique bi. parce que ñun suñu euh, Pastef yëpp moo doon juillet 31 décembre nekk ci benn scène ba soirée bi tas ñun loolu rek lañ bëggoon. et euh, benn club bu ñuy wax club libanais. mi ngi nekk fii tey boo jëlee autoroute bi. di ñëw ba romb. Euh, balaa ngay wàcc pont bi pour pour pour. E mm-hmm. e booy balaa ngay romb euh, jot EMG foofu la club bi nekkoon. waa Mbaye Gueye notre ami. Mm-hmm. Mbaye Gueye nit bu baax ah, nit bu baax nit bu baax bu baax. Mm-hmm. bu yaru waaw. Ah, Anna. Euh, tonton Mbaye Gueye. danaa bokkoon ci benn euh, bu tudd Number One. ah léegi euh, est-ce que mën nañu xam de euh, pourquoi bu quitter euh, number one pour dem au Super Étoile. parce que avant ni ma dem ni ma dem ba duggee number one si le boobu man ak Youssou ak ndem si yàlla si déggal pardon. Mm-hmm. dem si yàlla si Charles Diop. Edouard Varfroy. ndem si yàlla si Marc Samb. bi nekkoon ak ñun ñoo fa nekkandoo ndoo woon ak Ousseyn Ndiaye. mais loolu bi mu. jeexee jamono un boobu ma nekk ci benn groupe bu ñuy wax super xam-xam boo déggee tur bi sax dina xaw a ree super xam-xam maanaam dañu xam lu bari du xam nga lu super ci musique <laughs> tu vois y avait man Ousseynou Ndiaye Jimi mbay Assane Ndiaye Assane Ndiaye bii mhm. di way ñu ñent ñoom boobu ñoo nekkoon ci orchestre boobu muy super xam-xam suñu bàyyi yàlla na suuf oyof ci kawam Alaaji Abdoulaye Ngom di papay Pap ngoom Sédima mhm. Pape Babacar Ngom ñoo daan ànd tu vois mhm. et donc ñu ne dañuy tuer Kazane Samba Diéry Diallo mhm. ce jour nga ma gis nag parce que défilé wu tumba bi ma doon tëgg maako ko foral sama bopp comme ni cubain yi di foore tumba xam nga ñoom c'est des salseros for ko pour rek bëgg am son bu jéggi dayoo son bu yuuxu Mm-hmm. waaw mbeewal loolu yëpp da koy seede ma <laughs> neexee na mbee xaal mi uh-huh. et jour boobu noonu ñu ngi am benn chanteur guinéen bu mënoon a way moom tamit dan reprendre ay morceau Boubacar Demba Camara mm-hmm. euh, de la Guinée ñu départ morceau bi waa number one ñu ngi jàkkaarloog ñun ci beneen scène bi parce que caserne Samba Diéry ñaari scène la woon bi à gauche bi à droite mais waa number one ñu ngi teg sono bu jéggi dayoo mm-hmm. sono bu am maanaa dem si àll si Lengstaal mi ngi teg ay kongaas maanaam ay tumba yu bees tax ay elpi man sama yoos ay asba la yu euh, ancien mais dama ko verni foor ko seere ko ba boo déggee der bi bu ma ko tegee non le son da ngay yuuxu ma eh, ni tey dinaa leen impressionné ñi mm-hmm. boobu su max benn xaritu jaay ku ñuy wax mbay guitare ak ñoom yax yafaal nii ni ñu ngi nëmboon ñoom mais bi ñu déparé rek ba gars yi jox ma ne ma ëpp solo maanaam nga développé bi ma développé maa ngi leen di xool ñoom ñëpp jóg taxaw di di ma yëndu ma ne ah affaire bi dal na waaw parce que défi la woon d'accord suma benn frère demi frère bu papa mi ngi kontaan mbay fay bi ma paree mu ñëw jël ma xëcc ma ñëw ci wàllu mboon ne leen sam kii sama doomu frère la euh, le guitariste aussi moom itam mbay gitaar kontaan ku ne ngi bëgg wan ni wane ni yaa ma yar ci ñoom mm-hmm. et donc nu mboon invité ma ma dem seetaan leen sayel parce que nu doon la joué sayel ma dem fa fekk percussionniste bi ñëwul lynx mm-hmm. xaw na feebar tuuti ma ñu jox ma tam ne ma ndax mën nga ko assuré bon xale laa woon ah gën naa nekk xale mm-hmm. may leen mais bien sûr ñu ne ma acca nan départ nu mboon orchestre bu mag ah bu mag ah parce que ñoom daan nan nu seen ay contrat daan na dem année lëmm bu comme par exemple nga ni 2007 ñu ne mënuñu la tëggal 2007 2018 la mën a tëggal ndax chargé mais ma tëgg soirée bi soirée bi neex ñu war a dem ñoom Casamance ne ma dañuy dem Casamance dama ngi jëli say bagage may leen non ñu ne ma abbé ah, pourquoi xanaa bëgguloo bokk na mboon may leen bëgg naa bokk na mboon mais dama am kilifa mënuma fi jóge rek dem jël samay bagage topp leen pour ñu dem Casamance te tàggu ma sama papa wala tàggu sama tàggu ma sama yaay loolu nag amatul léegi ah ci musique bi non xale yi yàkkamte ngay leen ëpp bay ñu ne la ëpp oh. mhm. non mais ñu ndaw ñu dox leen noonu ah ñu dem waaye at ñu ñëwaat invité ma ñëw ñu joué ñu ne ma dañ la bëgg jël na mboon si jamono boobu proposé ma salaire ah ma joué ñoom def seen album yu mag yëpp nag mhm. xam nga et Youssou di formé moom itamit nag super étoile xalaatul kenn ku du mbay di mhm. tu vois seen bëggee mën naa ñëw foofu mhm. waaw kon bi muy former le super super étoile il a fait appel à vous ah oui mhm. gis ay sollicité gis gis ak ay connaisseurs ndeysaan bi daan def théâtre moom moom Ibolaay man maa ci waxtaanoon ak moom mais Youssou waxtaan ceeg ku ñuy wax Papa Dieng Blacky ah, bi ànd ak Alaaji Bekaay Mbaye ci lay du téeg waxtaan ak moom ñoo ñooñu laaj ko mooy leen kenn rek laa xam ne bu ma ko amee groupe bi dana suude suudewu lool te danaa dem ñu ne ko kan mooy leen mbay ji wala ndakaaru mbay yi mm-hmm. lool la mu taxoon wax ko xorom si wala non mm-hmm. boobu xam na ma ay xarit lañu ànd nañ lu yàgg te xam na li ma li ma mën a apporter tu vois ba pare xam nañu tamit may mbay ji ndakaaru mm-hmm. mës nay wax ak nit ne leen kooku ne ko am ku ma nuyu ne ma grand gëj naa laa gis mu ne ko def nga erreur bu mag mbay jee kenn du ko gëj a gis kii mooy baj jëwul ndakaaru gisu leen ko man gisu leen ma man yu soo loolu de ne leen ma man waaw nii rek ca kaw rek waaw tu vois parce que jëwal ndakaaru am nag lu muy joué xam nga bu ñuy fal sal saltige fal jaraaf fal sëriñ ndakaaru ne la kenn amul droit door sept coups de baguette bu dul baj jëwal ndakaaru nga xam ne kon am na lu ci biir tu vois waaw. Super. Amis auditeurs et téléspectateurs de la chaîne Rewmi TV, je rappelle que nous sommes avec Maestro Mbaye Dièye Faye. Alors kon tey moo nekk suñu invité ci émission Rewmi People. Alors tonton, j'aimerais aussi nga ñëwaat ci sa relation ak Youssou Ndour parce que tout est beau euh, d'or mais est-ce que ànd dafa yàgg dëkk dafa yàgg est-ce que mosu leen tam am altercation au sein de vous mos ngeen jote wala euh, dans le cadre du travail est-ce que mosu leen am xëccoo euh, très sincèrement. oui ah, loolu nag xam nga jaaxal na nit ñi ah. Mm-hmm. nit ñu bëree ngi ciy jàng nag. Mm-hmm. am na borom xam-xam yu mag. léeg ñu jël exemple ci mën ak Youssou Ndour. ci vois mës naa dégg. alaaji Iran Ndaw ngay saluer de passage. mu naan bu ñuy jël référence ci ànd. nan xool mbay Dieye fay ak Youssou Ndour seen ànd mi ngi yàgg te ñaawul xam nga loolu lan moo koy indi non léeg lekk ba ak làmmiñ ñoo mhm. ñu laalante mhm. hmm? ba benn yoon rek laa mësa fàttaliku man ak Youssou ñu wax ba ku nekk dënnam tàng mhm. mais après ku ne da nga wane ginnaaw say rango mën xam cause da ngeen day ñu wane ginnaaw euh, ku nekk gis ni xam nga ay rangooñam mi ngi wàcc lu waraloon ngeen jooy waa mais parce que ay xarit la ñu mm-hmm. et circonstance bu ndaw rek xam nga seytaane dafa bari doole rek tax na bés boobu ku ne wax ak sa morom ba mais ci wax ji yëpp nag kenn du dépassé sa morom mm-hmm. ci cadre liggéey la cadre liggéey bi mm-hmm. cadre liggéey yaa ngi dégg mais li may wax ni attends léegi mu mat euh, vingt ans kon nga xam ne yàgg na mais ba léegi nii je touche du bois parce que xam nga lu koy indi ànd ñu bari seen ànd ak seen xarit wala seen ànd ak nit li ko mën a yàq bari na xam nga loolu lan moo koy indi seetlu ak lu tax moom di ànd ak nit yàlla jox ko un million par exemple jox la deux cent mille wala trois cent mille ci liggéey ci xayma wala quatre cent mille comprendre nga daal ne kii li muy am man mi war naa ko am tamit temps ah? mm-hmm. fekk non mais kenn musul ñëw ci yow nettali la euh, pour jëm leen jaxase. kenn sa musu leen dund lool. kenn sañu ko. très sincèrement. kenn sañu ko xam nga lu tax. Mhm. sooy ànd ak sa nit. yàlla def ko ni mu ko def. nongul ko ko. Mhm. nongul ko ko du ñàkk nag léeg-léeg mu am ñu bëgg ñëw sax. xam nga dëbb sotti ci kaan yi. Mhm. pour rek gis lu méngóog. li mu daawul gis ci déggoo ak xarit yow. yéenante. tu vois loolu yàlla dafa dogal nag. wax fa dëgg yàlla mu am yu nu bokk man ak moom Youssou day déllee xol bi def rëy du wax lu ñaaw parce que ruus na ko ma ni tamit suñu borom may na ma loolu xam nga lu tax fi ñu soxeekoo la on n'a pas droit à l'erreur wala ñuy wax lu ñu xeebe bu ñu ko xeebeewul ñun sax bu sa doom rombee ñu ne accim baay bee fi waxoon lii kii de baayam accam accam d'accord ah. alors Ada tonton Mbaye Dièye. nag yow nag laal nga gómba. Mm-hmm. parce que écurie doone écurie Fass waxoo ma man. doone écurie Fass tuddoo waa sañ-sañ. parce que ki nga écurie Fass maa ngi koy wax keroog. ñun ñun dañu mën a bëre ah. du na ay mbër nag. waaye lu mbër yi bëre xam nan ko. lu ñuy waaj def ci bëre xam nga xam nan ko. ñun suñu kër ba écurie doon uni bu fekkee ne université la suñu kër Fass. Mhm. mooy mooy bureau ba. fa la doon fréquenté. ñëpp fa la ñuy fréquenté. ba ci musique bi ku bëggaan ñu dégg la ci musique foofu ngay fréquenté à l'époque parce que y avait les Cheikh Tidiane Tall Ndem Sall si les sa Diop les Tonton Blain Mbaye mhm. les maanaam ñi màggoon ci musique crème bi quoi laa la bëgg a wax. Mhm. waa ñi nga xam ni en 1974 ñi ngi daan percevoir ki gënoon néew salaire 150 000 la amoon CFA. à l'époque en 74. kii salaire am gënoon na yëg mille la amoon. xëy na sax 350000. boobu El Hadj Ndiouga Kébé moo defar sayel tu vois donc Fass lañ daan dajaloo kër ga comprendre nga. moo tax musique bi bettul ñi ma xam. parce que ma suma côté famille. ñi ci ëppoon ñëpp théâtre lañ daan def. ñun théâtre lañ njëkk a def mën a yuusu. ak si dramatique. jël jël finale semaine de la jeunesse. daal di éliminé cercle de la jeunesse bu Louga te boobu cercle de la jeunesse bu Louga ñoo fi mënoon ci théâtre ñun ñu ñëw pousse leen jël final bi boobu am na ay théâtre kat yoo xam ni ñoo naan ñoo bokkoon par exemple Ramatiap euh, Bas Jaxate ñoom Sidi Ñang mm-hmm. ñooñu ñoo bokkoon seen dramatique mm-hmm. waaw mais keroog dem nañ ba finale bi metti lool mais ñi ngi euh, jury bi mi ngi jëlee décision que ñun ñooy gagné ba Youssou jëlee micro bi mm-hmm. way Euh, ngóor baatu xale bi di résonné ci stade bi. Mhm. ma dar kook sabar yi man ak sama gars yi ñu ànd ak bale bi gars yi ne nii la. Mhm. tu vois mhm. donc Fass euh, écrit bu mag ah. waaw mu yàgg nag. su ma ndijaay dafa daan bëri. moo doon moo doon raay sigaar numéro un faga. su ma ndijaay euh, tonton Pape nekk manager. papay Ablaye Mbaye tonton Dame mhm. nekk manager mbay Guèye moom itamit donc mbër yu baree ngi fi Sénégal ci mag ni jaar nañ ca kër ga mhm. comprendre nga parfaitement waaw ah. alors maestro bëggoon nañ tam dugg ak yow tuuti ci sa cursus scolaire parce que dañuy gis ni macha allah da nga waaneloo ci français bi da nga koy mañeek olof bi c'est-à-dire euh, da nga euh, fréquenté nga école ba ba ban niveau. man man man sama jàng man jàgguma école de. à à l'époque sax ngi naan ñu ngi naan troisième primaire lan lan wax. <laughs> tu vois xam nga. mais ma ça se nga assimilé nii. waaw bon peut-être intelligence la ah. léeg-léeg xale yi suma waa kër ñuy waxtaan ma xam nga ma jékki-jékki rek daal di articuler noonu genre ñu ne billaay boo jàngoon du baax donc <laughs> suñu ma école ma mhm. troisième parce que après dama topp musique bi topp théâtre bi mhm. ak voyage yeeg noonu nag mhm. ak yu bari mooy tax sax xam nga yenn kàllaam yi da leen ma anglais nit defe nii dama ko jàng école bu baax fekk école de la rue la. Mhm. tu vois. Mhm. Euh, bon yàgguma yàgguma te xam naa ne moo fa yàggoon. Mhm. dinaa ci doon it. ndaanaan bu mag ci école ba. ça c'est sûr mais nag kaay ma jox la benn anecdote. Euh, école bi daan na def fête maîtresse bi ndeysaan madame Ndaw duma ko fàtte. sa maîtresse la woon. waaw mais daf ma bëggoon. parce nan laan wax naan dama mignon woon bi ma nekkee xale donc moom bu daan dem këram man lay woo def ma partenaire mhm. ma jël livre yi kay te ma bëggoon quoi mhm. et puis suñu directeur ndeysaan euh, papa Abdourahmane Diop mhm. dëkk fii euh, zone B euh, moom it tamit mais bu fet amee dan ma daf ma naan indil benn sabar rek ma dem indi benn sabar kër gi ñëw école bi yëpp cotisé nii cinq nii dix francs nii kii ñu dajaleel ma ma dóoral leen ba sabaru sabaru benn tëggkat ci bi ci cour bi bu fatt tarej daal di wàcceeg sama mbuusu xaalis daal di dem donc euh, voilà euh, école bi nag yàgguma fa yàgguma fa waaw li nga dégg xam nga nag may kii rek ngéwal gee la gënoon dugg ngéwal <laughs> gee ma dugg ngéwal dugg mais vraiment. loolu mu ngéwél ngéwél gi duggee tamit alhamdulilah. Mhm. ñu gis itam artiste yu bëri euh, dañuy faire appel à vous. parce que bon peut-être dañuy bëgg nga accompagner leen tout au début qu'est-ce qui fait ça dañuy bëgg nga ambiance leen ou peut-être pour euh, plus les revigorer moo tax ñuy faire appel à vous. waaw euh, li koy indi moom mooy euh, fecc lii bu neexee yaay taar jàpp ca mbagg ya. koo mhm. fi dégg ku ne ñuy wax ci moom. jàppale nañ ko ba ci sëriñ bi am na ko jàngal xam-xam euh, donc boo demee ba màcc ci noonu xale yi tamit dañuy bëgg nga bigëp leen nga bigëp leen ñu am morceau euh, album woo la wala ñu xewle woo la pour nga ñëw taaral bés bi xam nga euh, daan na am ci méloman de la musique yi

dafa wuteeg yenn métiers yu bari. kaay ma la benn affaire. Mhm. mën nga wàcc yow. nga nekk woykat wala nga nekk danseuse. Mhm. wàcc léegi dëkk boo mësul dem. Mhm. fekk fa ñuy jouer musique ngeen waxtaan ba nga way wala nga jouer. walla nga fecc rek dugg da musique rek moo am loolu. gise léegi xamante léegi ànd dem ba mën ngeen a sax.

am hygiène de vie bu baax. de trois di nelaw bu baax man damay ko ne douze heures de sommeil il faut que ma nelaw. beneen bi no stress. ñu bari dañuy dan dan dan dan dañuy définir sax chaque jour que je fais maa ngi dem salle pour entraîner. mais kaay ma wax benn affaire dina ko wax ci réew mi. ça fait presque vingt cinq ans entraîné wu xanaa sabar yi. moo raw daw. moo raw yenn weñ deux heures deux heures deux heures de temps enchaîné ngay tëgg mais looloo looloo raw lépp di ñàkk di transpirer pendant deux heures de temps ñuy def salle sax mënuñu ko déedéet dañuy def benn quinze minutes di taxaw naan ndox ñun deux heures de concert laay def di tëgg endurance bu metti di ñàkk tu vois loolu rek mën na la téye ah. gëj naa entraîné mais nag il faut ma commencé ko parce que ak confinement bi nii ay xaw a jël poids yenn yëre yi dootuñu la jot. Mhm. tu vois. Mhm. comprendre nga. xam nga loolu sax euh, moom lu am ci confinement bi baal ma ci dagg bi euh, commencé woon ngeen ay prestations chez euh, Youssou Ndour. fii tay mhm. mais ñu gis ne dangeen ko teel a écourté pourquoi cela. merci beaucoup. donc gisoo sax li tama bàyyi bi dégg naa nit ñi commencé nañoo werante nag. nii nee nañ dama tent su <laughs> sama cousin mi ma koy wax laaj <laughs> seen group bi ku ne ngi werante et ñi koy laaj bari du tent. yàlla ma def ni yi weex yi ñuul loolu rek wax la comme gars yi laaj naan Mbaye Dieye Faye lu tax du xam nga doo màgget Mbaye Dieye Faye màggetul patiti patita benn bi nag xam nga non stress laay dund man non stress dama am benn kees bu rëy bu ma bind non stress bu stress ñëwee rek ma dugal ko ci biir tëj bu feesee ma këp ko euh, mais fii tey mu neexoon na gars yi ah. kontaan na na mm-hmm. partout dans le moon vraiment fu ne nañu jot ay coup de fil ñëpp bëgg ndax gunge bi ñu leen gunge. Mhm. parce que tëju dafa metti mhm. mais yàlla ñu tëjoon. waaw yàllaa tëj ñëpp nag. moo sàkk feebar bi ni mu dem. yàlla yàlla la. yàlla la kenn mënu ko. yi nga ni yàlla sàkkee koor. Mhm. nga ubbi sa frigidaire gis bouteilles yi sedd nga tëj ko. ah noonu la yàlla ne adduna bi dina ko téye man yàlla sama loxo. te du jóg moom rek moo mën. yàlla ay noy bii ñuy nooyi sax moom la neex. ko neexoon léegi mu of ko. Mhm. kon ça nous permet même de de d'aborder une actualité. ah oui tey la Covid 19 yow en tant qu'artiste noo ko dundee toujours confiné chez vous wala. oui xam nga ma tontu la ci euh, fii tey bi. Mhm. koor gi mooy ñëw. Mhm. koor bi weeru koor moo tax ñu off. vous allez reprendre wala. waxtaan nañ ci. foofu noonu bi ñuy bi ñu defee euh, bu mujj bi. ne après ñu xool ndax dañ koy continuer. wala da nga koy téye fii. parce que gisoon na nit ñi nit ñi kontaan nañu. ñu bari naan lu tax ngeen arrêté ko. ci waa donc weeru koor bi ñu doon dugg àndul woon nag ñuy dem di ko def ba ak ak. àndul woon ak Mumbaay non non xam nga doo woor nag. dem bon daan dal nañu a ah. tukki dem ci ba tàyyi mm-hmm. weeru koor fekk ñu tourné. Mm-hmm. par exemple koor gi mujj ñun ñu ngi woon États-Unis ah te ñu bari ci Sénégal yi sax yéeguñu ko ah xanaa ñun ñoo leen woo ne leen ñu ngi États-Unis mhm. parce que yooyu ay concert tubaab la xam nga saalu dix mille personne mhm. quinze mille personnes tu vois mhm. te gis nañ ko ci weeru koor wala passé nekk États-Unis di tourner waaw tu vois mais bii mënuñu ko fi dañu fekk nag xam nga da ngay woo da ngay ànd ak njaboot gi covid bi noo ko dundee lu ma ko dundee comme ñëpp nin ko dundee ak nin ko santaane léeg-léeg ma dégg yenn yenn ci nit ci naan ba tey gëmuñu ko gis nga. Mm-hmm. waaye yow kan mooy téye sa sa réew tëj ko économiquement dara du dox. te amul lu ko waral. nga bañ koo gëm. waa loolu ñooñu est-ce que nit lan nan dem ñu defaat defaraat leen bokk monde bee taxaw. Mm-hmm. comprendre nga comme ni ma ko dundee ah comme ñëpp ah. Mm-hmm. Euh, sama mas mi ngi fi. am na espace ni ngi fi aéré na. voilà donc. takk masque waaw xam nga boo joxatul sa papa loxo am na lu tax kenn joxeetul loxo nanu moytu raxas loxo yi baset moytu dajaloo bi moytu tere nangu digal yi ñu docteur yi tere mais di wax naan metti na vraiment ma félicité santé sunu ministre Abdoulaye Diouf Sarr félicité ñi ñuy aar xam ne bu ñuy nelaw ñoom ñi ngi ci mbedd mi mooy police sunu xarit Aly Ngouille Ndiaye armée nationale la gendarmerie massa coono tamit président de la république parce que yor réew suñu borom teg ko sa kaw lu dariñ lu mel ni dal sa kaw métti mhm. na war nan laa ñaanal mhm. donc moom ñu koy ñaanal vraiment moom tamit mu yegg la ak sa góob d'accord ah Anna oui gis nañ ne en cette période de Covid de Covid 19. Mm. Euh, artistes yu bëri ñoo génne ay wéy pour sensibiliser la population. léegi mm. yow ban appréciation ngay def ak xam nga ñun nag ñun ci sensibiliser la ñu dëkk même bu dul Covid bi waaye yëpp boo dib di ci dégg lu mën a yeete def nan ko boo xoolee fii tey tout le temps ni ngi wax maa ngi naan bul laal bul ko jege kii raxasulee nag yi patati patata yu jëm ci yooyu artistes yi tamit def loolu ñoom i tamit gàcc ngaa lama artiste sénégal yi wax fa dëgg yàlla message bi jàll na mm-hmm. bu fekkee ni message rek la mm-hmm. ñoom jàllale na message bi. ku ci ne def nga. Mhm. Euh, benn son boo xam ni. Mhm. pour yeete la. Mhm. ci li xew. maa ngi leen di félicité. d' accord léegi seen jëwriñ di ministère bi ñu dénk wàllum aada ak cosaan Abdoulaye Diop euh, génnee na lu toll ci 3 milliards jox ko artistes yi d' après yow dispatching boobu tey nan lañ ko war a mën a defee ek aussi est ce que jàpp nga ni somme boobu c' est suffisant pour euh, dimbale ñi nga xamante ni ñooy sa mbokk woykat yi sa mbokk artistes yi d' une manière générale. Mm-hmm. waaw euh, baax na. Mm-hmm. gis nga lu ñëpp bokk. loo ca am na la doy waykat yi rek nekkuñu fi fettkat yi rek nekkuñu fi tëggkat yi rek nekkuñu fi nii def peintre nekkuñu fi artisanal ñoom rek nekkuñu fi boo nee aar dafa yaatu dafa rëy waa léegi loolu état def jox ko bi pour mu séddale ko artistes ku ne am ci li nga ci war a am as mu néew mu bari bu kenn xeet yaa ngi dégg xam nga man lan mooy rey ci man lool ñu ne feebar bi dem na. e donc ñuy remercier comme ni ma ko waxee président mu xalaat ministre bi. xam ne culture dafa bokk ci réew aada cosaan. mais tonton Mbaye comité de pilota comité de pilotage. am na ñu naan na ñu constituer un comité des sages boole ci ñu mel ni maestro yu mel ni yow ak yu Ndour pour ñoom ñu superviser séddale xaalis googu est-ce que vous êtes d'accord. est-ce que xam nga balaa may ñëw ci dara. Mm-hmm. wax fa dëgg yàlla. Euh, li maam Abdou Aziz daan wax. naan yàlla gémmiñ gu mu xar def ca pepp bu dul xaalis boobu yàllaa ngi ñuy jàppale i rabbil alamin comme ni muy jàppale ñëpp mhm. mais war na am c'est ni nga ko waxee mhm. euh, comité de sage baa mhm. euh, ngi dégg sama benn tonton Idrissa Diop mu ne ma ministre bi wax naa naak moom tamit ci loolu moom mooy tonton fly on fly on <laughs> tonton bu nice boobu quoi comprendre Euh, lu ci mën a am rek nan ko waxtaanee rek teg ko ci yoon parce que ministre bi tamit wax fa dëgg yàlla euh, nit bu baax la njiit la mm-hmm. yaa ngi dégg kaay ma wax la benn affaire mm-hmm. billaay mosuma toog bureau xamante nañu nag mm-hmm. comprendre nga parce que léeg-léeg nag coow li bari mais ki yàlla teg loolu mu doon ko moom li ma koy ñaanal mooy mu mën a gérer culture bi mais duma taxaw naan niki sax Mata Ndiaye passé par là. Mhm. dama koy ñaanal parce que nit dafa métti quoi. c'est dafa métti. c'est vrai nit dafa métti parce que man damay dem sa léeg-léeg ba daal di waaw léegi. Mhm. waaw kan moo war a nekk njiit. sànninte xeer bi mhm. mës naa ko wax le président Mbagnick ne ko galgal yeeg padd yi dina metti mais na sa xel dem ci am na way wu ñu wayoon bul faale bul toppatoo mais di leen sóor xam nga oto bi ci kanam bi ci ginnaaw moo koy klaxonné waaye moom bi ci kanam tonton Mbaye bëgg naa tam avant ñuy clore l'émission parce que sa sama caméraman mu ma naan le temps qui nous est imparti est presque fini tey jii ban secret la suñu mag ñu mel ni yow am ci seen euh, macha allah néegu sëy parce que tata maam mu ngi ci jàmm alhamdulilah ak njaboot ji mais tey jii ñu gis ni divorce yi bëri na ci xale yi quel est votre secret en tant que ñoo xamante ni macha allah tey jii romb nañ seen ay dizaine ci li nga xamante ni mooy seen néegu sëy ci seen wàllu mariage euh, disons, un, un, un conseil à donner aux jeunes, pourquoi pas jërëjëf ma tëjee conseil bi ci artistes yi ak euh, ministre bi mm-hmm. nanu waxtaan rek ba jubóo d'accord bu kenn ŋàññi kenn mm-hmm. na ñëpp def ni mm-hmm. l'union fait la force bu kenn fexe sa côté gën a rafet que côté ministre bi ministre bi tamit bu mu fexee mhm. ba côté am gën a rafet que côté na yëpp rafetandoo mhm. ah tu ko defee boo euh, mu neex a gis mhm. comprendre divorce yi wax nga dégg bari na yàlla nag ni mu sàkkee sëy la sàkkee taxalikoo mais am na yu ko mën a fànq xam nga moom mooy lan fàttaliku bés bi ñu lay may soxna ak yow itamit bés bi ñu lay may jëkkër xam nga booy wut soxna lislaam bés boobu rek la tànn pour nga yónni sa papa. xam nga fekk sa papa mu toog nga ni ko papa kaay ma yónni la loolu day na waar de wala tonton kaay ma yónni la mais sa papa say waajur dañuy yàkkamtee jóg yow mii seen doom doxali la sa yónnent parce que sëy la fa sacré léegi yooyu yëpp tàkkusaan ba jot ñëpp daje ci jàkk ji say yow say bàjjen say maam say tant say ndijaay ñëpp àndandoo parce que ku ne di xaar rek ñu ne maye nan ba ñu ne félicitation commencé nag yedd la nga sëy yow itam ku góor ki kin la may nga euh, fas yéene koo gënal ñëpp fas yéene koo gënal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp donc boo demee ba problème am rek na sa xel ñëw ci bis boobu noonu bés ba nga yónnee sa papa ak bés bi mag ñi bàyyi seen soxla dugg ci jumaa ji loolu moo ko mën a apaiser nga ni ah naa ko jéggal yow ku jigéen ki tamit daat ne ah bu ma def lu ñaaw parce que bés bii moo taxoon tu yooyu buñ koy xalaat yenn sëy yi du tas. d'accord waaw. est-ce qu'on un de ces quatre que nga jël ñaareel. mais xam nga ajaratu maam Ndiaye ngi fi <laughs> yaay xale mën nañ ko yóbbu sax ci kaw <laughs> yaay xale yaa ngi fi. Uh-huh. vraiment jigéen ju baax. Uh-huh. ju am maanaa. ju baax lool. ci baax. Uh-huh. xam nga tey jii nit mën na xëy daal ne man mi dama bëgg takki te doo fekk doo takk dara wax yàlla tudd ko mhm. nit daal di ñëw daal man mii duma takki dara fekk di di am leneen yàlla tudd la mhm. tu dama lay wax ajaratu mooy aaw buuru kër ci këram acca tonton ah euh, ndax da ay spectacle yoo waajal wala ay son yu bees oui mhm. am na am am na spectacle yu may waajal. Mm-hmm. am na yu bees yu ma denc. mais xam nga moment bi loo génne. du am buzz. non non non non. Mm-hmm. que li fi xew la. Mm-hmm. boo gisee sax ci yenn way yi ni génn xale yi génne pour sensibiliser est-ce que am na boo ci jàpp ah? est-ce que am na boo ci jàpp nii. du tout. à 100 pour cent. non non. moo xew. waaw moom laa la. et morceau corona yi sax capté woo ci benn. tu vois. et donc, y en a beaucoup aussi. Mm-hmm. waaw c'est que am na ci yoo xam ni dañuy mélanger morceau lëmm ak trois minutes pour sensibiliser. Mm-hmm. parce que pour sensibiliser morceau bi deux minutes cinquante lay def wala trois minutes pour nit ki mën ko capter. Mm-hmm. mais bu guddee rek mu fàtte et ce que ñoom ñëpp mënuñu woon dajaloo def benn single. bien sûr waaw mais xam nga nag. xam nga moom mooy comme li nga wax noonu <laughs> xëy na yenn gars yi dañuy dégg <laughs> am na lu ñuy joxe. Uh-huh. yaa ngi dégg et ku ko deful morceau doo ci am fekk loolu. Mhm. d' accord les projets donc sont là. waaw projets yi ñu ngi fi et bu ñu yàlla mayee. Mhm. wax fa dëgg yàlla dàqal ñu feebar bi. Mhm. yàlla na ko yàlla tegg ci réew mi. Euh, ba nit ñëpp delluwaat euh, ci leen daan def ci lu baax. et yàlla mën na ko. yàlla dafa baax ngi dégg et yàlla na jàmm yàgg pour notre pays de la Teranga. amiin sunu réew mu am maanaam yi. Ah? nga xam ni fleur la. ku ne da war di ko arrosé. bu ñu def bi c'est inné wala. feeling bi. waaw feeling bi nag xam nga rek. waaw. loolu la waaw fa la kii jaar tàggoo. alors c'était au plaisir waxtaan gi neexoon na on a am na lu des loo bëri loo xam ne waroon nañ ko waxtaanee mais ce n'est que partie remise dañuy dem ñëwaat du ko yàq. aca ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi la doon lu ci la rajo Rewmi FM ak Rewmi TV la télé du peuple. am mbégte encore pour tëjee fa. Mhm. Rewmi TV Rewmi FM. mës naa wax président Mbagnick ne ko télé bi ñëwagul waaye ça va trop cartonné parce que le nom ça sonne Rewmi TV mm-hmm. ça sonne trop mm-hmm. et beneen bi mooy ma ñaanal ko ah mm-hmm. ñaanal ko jàmm le président Mbagnick Diop l'africain le sénégalais nit bu baax bi nit bu am maanaa bi le rassembleur tu mu am jàmm li mu boot qui fait aussi aux jeunes. loolu moo tax mu def li mu def. Mhm. société yi mu créé bari na. te euh, defar ñi nga xam ni ñoom ñoo ko teg. Mhm. waaw moom looloo ko tax a jóg ah. Mhm. et loolu la xam parce que xam lu tax jeunesse am def ci yëngu bu baax. donc moo tax muy def confiance aux jeunes. le président Mbagnick et ñaanal ko jàmm yéen bi oyof ci kawam. amiin ci ba xam nga yàggul dara. awards yaa ngi waroon am États-Unis mhm. faf lii ñëw mhm. ñaanal ko ñaanal jabaram mhm. yàlla bàyyi ko jabaram ak njabootam tu vois euh, ñaanal réew mi jàmm ah ñëpp am jàmm ñu fekke ak tal yàlla tàppe xol yi changé jikko yi ku ne koo war a jox cër respect nga jox ko ko loo am moom mu ne c'est normal ci lu baax noonu la réew di doxee ah? donc euh, Mbaye Dieye Faye la woon ngeen fekk si ko. waaw ah. Sacré-Cœur ci cadre bu yang bi. waaw gis nga moo tax ma ne gars yi nag je suis chez moi. <laughs> c'est sûr waaw comme dañ ma doon kaañoo fan yi rek. <laughs> xale yi maa ngi benn xa ah. looy tontu aux gens yoo xam ne dañ la doon ne euh, reste chez toi. oui. xam nga da nga euh, benn benn vidéo bi ma ne. oui oui. après nga doon sensibiliser nit ñi. nit ñi restez chez vous. oui parce que. sama xarit yi ñu nekk ci rajo yeeg yëpp ñuy def revue de presse. ñoom ñëpp kaañoo nan ba xam nga ñoom ñëpp ñëpp samay waay la. chez Youssou Ndour c'est chez moi et puis c'était pour le travail. ci cadre travail bi. studio bi ak télé bi la ñu déplacé yóbbu ko këram. bés boobu foofu studio euh, Prince Art la woon bés boobu du boobu du woon kër yu sundu studio la woon TFM la woon. parce que équipe bi rek ñoo fa nekkoon et puis ah mais euh, bu jaree ñu ubbi studio kër Youssou Ndour foofu la ñuy liggéey de mhm. même bu lii feebar bi dañ dañul tey cinq-cinq ba ma amee lu may liggéey fii laa leen di woo de mhm. yaa ngi dégg waaw ñu def ko fi si parce que c'est le travail mhm. donc nag mais yenn nit ñi nag da gis du gis ni waaw da doon mbalagaale rek waaw xam moo tax ma ni leen eh je suis chez moi way yéen restez chez vous waaw man je suis maa ngi nii ah réew mi vous êtes chez vous. Mm-hmm. Hmm? Ah completement donc yàlla na jàmm yàgg. Ah, ah. yàlla defal ñëpp jàmm nag. ñëpp am jàmm. bu mm-hmm. jàmm amee rek lépp baax yéenante jàmm. yéenante lu rafet. Mm-hmm. ah yaa ngi dégg. te def li maam Abdou daan wax yàlla na ko yàlla defal yàlla yàlla tappe xol yi. amiin te muñalante ah. kontaan naa ci yéen ñoo la gën a mbég tonton ñu amoon mbégte kon ñëwoon fii ci Sacré Cœur seet si la xam du ñàkk ñu ñëwaat incha allah ndax yow waxtaan ak yow dañuy neex loolu. kon euh, amis auditeurs c'était tout pour Rewmi People de ce samedi on revient incha allah la semaine prochaine ak beneen star jaajëf à mon caméraman euh, Modou Ndiaye Diatta. Modou Ndiaye et aussi à la sama tubaab sama tubaab bu ñuul bi Anna donc euh, tey jii moom laa doon co-animer émission bi. Anna Thiaw nga ne ko moom lan. <laughs> foofa toj à tons aca <laughs> merci beaucoup à la semaine prochaine inch'Allah très bon week-end